jot li cantu Cheikh Mountakha dama ko mënta ñàkk wax ndax diggante Cheikh Mountakha ak Cheikh Abdoul Hakim dafa jege woon te doy waar lool boo xam ne mën naa ne espèce de complicité spirituelle bu dox seen diggante Cheikh Mountakha bi ñu ko waxee yéene gi nga xam ne kuréel bi am na ko ci bis bii ñu tuddee ko Cheikh Abdou Hakim yaakaar naa ne kan mooy Cheikh Abdou Hakim digganteem ak boromam digganteem ak sëñ bi digganteem ak ñun ñi te loolu dafa xam ne dina am njëriñ dana amal njëriñ ñun ndax bu fekkente ne. ku fi teew tey te loolu amalu la njëriñ ma xam ne sa digganteeg si Abdou Hakim des na sëñ Muntaxa dafa daal di yëg loolu fi saasi moo tax fi saasi mu ànd ca doon ci ànd man amoon naa réticence lu tax mooy dama doon rajo ñu jaar ko fu nga xam ne xam ne moo tax a mu jóg mën du ko neex. te lu ko neexut wala lu ma jàpp ne neexut loola du ma ca ànd waaye nee naa leen Cheikh Mountakha dafa gën a dégg si ndax moom daf ko li nekk ci moom xam na ne fu ñu ko tuddee nit ñi jariñu ci xaj na mën naa am sama digganteeg Cheikh Abdou Hakim képp laa seet ba gisuma loolu waaye tey jii ma gis wax ji ni nit ñi waxee ak nit ñi di ci amee peste ak nit ciy jubloo xam naa ne lu mu mën di def la nga xam ne yéene naa ko te moo taxoon ma amoon dama doon bañ am lenn ci moom lu nga xam ne jàpp naa ne man na koo bañ a leer ci li may def ba tey waaye gis naa ne la nga xam ne doon naa ci ragal ñu tuddee lenn di wax Cheikh Abdoul Hakam di ci waxaale lenn yi àdduna wala muy mën a expliqué tuuti àdduna ndax loolu moo doon li nga xam ne moom doon doon Cheikh Abdoul wax nañ ko fi alhamdulilah bi nga xamee ne tey jii ci waxtu wi boobaa léegi ñun ñu fi di dégguñ fi lu dul leen gën a mën a delloo seen digganteeg seen borom ak lu nga xam ne danañ danañ ci man di jëriñoo ba faaw ci nu ñuy roye seen bopp ak yooyu dañ koy seen diggante kon nag bis bi alhamdulilah waa kuréel bi ñu ngi leen di sant am ngeen cantuk Cheikh Mouta ah mu daal di jot jot am ngeen cant gi sant na leen bu baax a baax ci te itam ñëpp wax nañ ko bu wóolu. wax yi bopp lu na maa tiit ci am na leneen lu muy mel waaye alhamdulilah li ma wax léegi Cheikh Mountakha moom moog Cheikh Abdou Hakim leneen lañ nañuy déggante moo ma gën a dégg Cheikh Abdou Hakim moo tax ñu mus ci am sikki sakka ne lii lay mel pour xam seen diggante sori gi mu sori mën naa ne at man nañ ne kenn ku ne ci ñoom ñaar am na lu mu gisal morom ja te kenn ku ne bëgg a jot morom ja ca ca loola bu wóor waxuma ko Cheikh Abdou Hakim waxuma ko waaye yëg naa ko xam naa ne loolu am Cheikh Abdou Hakim mën naa jot Cheikh Mountakha te loolu doog woon nañu Cheikh Mountakha fa soo yéene jot Cheikh Abdou Hakim te loolu doog woon nañu waaye Cheikh Abdou Hakim la yàlla nangul ak bëggam bëggam bu ma ko waxee bu leen jàpp ne démission la diggante diggante ma liggéey waaye dafa am lu mu yëg lu nga xam ne moom magam bi baax ja yàlla am na lu mu leen boole yëg-yëg boobu moo taxoon mu jaraloon ko bu fi naree jógee moom mu jóge fi yëg-yëg boobu la Cheikh Mountakha yëg moom itam diggante ba ko lu doy waar la seen diggante loolu Cheikh Abdou Khadim loolu tax bett nañu ñun ñëpp waaye moom bett am na ñu may waxal dama leen naan si wax ñu gudd fal lool ku ko xam xam ne gudd fal lool ndax ku ko xam waroon ngaa jàpp ne du agsi fii te it ndax yàlla da koo defal lépp benn yoon diggante ba borom ba tamit lool diggante ba borom moom yàlla dafa cee defal lépp loolu benn yoon kon moom noona bu fekkee ne ak si wutoon fii itam yàlla àggale woon na ko ci boromam digganteeg boromam xam nag àggaloon na ci digganteeg ni ñu ko séeree fii digganteeg ak seen tubaab te loolu mooy li am Hakim bu jataay bii kese booleeg moom. tàllal la ñuy ñëpp sëriñ bi